bismillahi rahmaani rahiim. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ginaaw bi ñu santee yàlla buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonenteem bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm yàlla suñu borom tabaaraka wa taala te nag ñu ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo ci vidéo yu am solo yu ñu baaxoo ànd ak yéen euh, mu aju ci. wàllu secret boo xamante ne nii secret bu am solo la ci suuratu sarxi suuratu sarxi nag mooy saaru alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak allazi anqada zahraka wa rafa'na laka zikrak dinañu leen ci woon tamit benn commentaire boo xamante ne am na mbokk mu ko commentaire woon ci jamono yuñ ko mosoon a joxe euh, muy texte bi ngeen di gis nit la ko xamantene ni buñ ko duggalé won ci jamono ñëk ya defoon nako gis ci résultat min nu ngeen di gis noonu commentaire bi kon yaakaar na li ñu leen di jox te sa su nekk ñu diko ko ci alcorane karim ak sunna sunna bi alayhi salaatu salaam lu wër a la loo xamanteni ni ku ko jëfandikoo rek yalla mëna la ci defal tawfiq su ko defee nak euh, suratu sarh bi da ngay japp ba sel tok jublu penku boko ko nak nag na nga la ñaari rakaa ba pare na nga la ñaari rakaa ba so no noppee nga jang ah mbokk modou tiari di fajj lepp luy éjaculation précoce manam ngeen di gaaw ag wala sax jafé jafé katan am ci bir kër gi bu ngeen di sétlu di leerlu seen mbir à distance wala ngeen bëgg li sixaar à distance japp len mbokk mo ci gëna la ñaari ba nga jang sarhi bam jeex limu 132 maanaam nga jàng ko ñaar fukki yoon nag nga jàng ko téeméeri yoon ak fanweer ak ñaar téeméeri yoon ak fanweer ak ñaar cent trente-deux fois waaye nag dafa am nuñ koy jànge ba'da kulli salaasa wa salaasina marra muy maanaam fanweer yoon ak ñett yoo am da ngay taxaw ñaan sa aajo incha allahu taala fanweeri yoon ak ñett yoo am da ngay taxaw ñaan sa ajo boo jàngee 33 alam nasra taxawal ñaan sa ajo jàngaat 33 taxaw ñaan sa aajo jàngaat 33 taxaw ñaan sa ajo ba ni 132 yi di motee boo noppee allah allahu taala nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu góoman incha allahu taala sa ajo suñ borom tabaraka wa taala dana la ko fajal ci kàttan suñ borom kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu nekk secret bu am solo lool képp koo xamante ne nag yitte woon garabu kër gi ñuy joxe garabu kàttan mu aju ci wàllu néegu sëy góor ñi nga xam ne dañoo néew kàttan wala ñuy gaaw a yëg seen kii daal ñuy gaaw a ñuy gaaw a kii incha allahu taala euh, garab gi garab gi efficace la gu ñu liggéey ci anam gu sell alquran ak euh, sunguf si nga xam ne sunguf su wër la te garab gi nag li ci gën am solo mooy day faj définitivement ci kàttanu suñu borom képp ku yittewoo garabu kër googu ba wootee ci numéro bii dinañ la ko mën a livrer fépp foo mën a nekk incha allahu taala jaaro yi ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ak bayre kaaraange lay dox képp ku mu yitteel tamit soo wootee des na la ci mën a jàppale ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala wala listixaar à distance Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum asalaamaaleykum japlen jaxle jeexna ak Serigne Modou Thiaré bu ngeen ité woté ñaan gu tënku si alquranul karim ak sunna yambal na len ay jaaro ubbeeku jaaro wërseuk jaaro bayre ak karangi waaye tamit bu ngeen bëggee bayre njaay am bokki Serigne Modou Thiaré di fajj lepp luy éjaculation précoce manam ngeen di gawo ag wala sax jafé jafé katan am ci bir kër gi bu ngeen di sétlu di lérlu seen bir à distance wala ngeen bëgg listixaar à distance jàpp bokki mo ci gëna ca gaaw ba tay bu ngeen bëggee ñu defal leen livraison à domicile fépp fu ngeen mënti nekk bu doon bitim réew wala si biir réew mi gaaw leen gaaw woote si 77 335 14 14 wala 78 191 16 16 bu dee Touba mi ngi si Madiana bu dee Dakar mi ngi si Cité Damel